chưa Bonjour amis téléspectateurs et bienvenue sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal. C'est avec un rayonnement immense, un agréable plaisir qu'on vous retrouve comme tous les matins du lundi au vendredi de 8h à 10h sur euh, la 2STV. Ni ñu koy defee euh, saay sunu yeewoo moom mooy euh, ànd ak yéen ba 10h di leen xibaar te di leen bégal ci suñu rubrique yi nga xam ne altine ba aljuma lañ koy amal si ànd ceeg ay rubricaires yi gën a xarañ mboolem ci ñi ñu mën a retrouver ci b bu ngeen yeewoo gis seen xar kanam ñu daal di leen di retarder je Par comment Par quelle procédure chimique, nucléaire ou biologique est passée ma chérie Seynabou que je parviens pas à joindre xam naa boo demee dafa lekk lu ëpp démb mais bon quel que soit Alpha on va devoir y aller sans elle euh, en attendant d'avoir ses nouvelles reviens-nous quand tu ne vas pas aux nouvelles tu n'auras pas les nouvelles de Seynabou et tu me manques déjà parce que je pense que embouteillage la wala téléphone bu palanqué wala genre affaire mais bon On sera là pour euh, vous, les téléspectateurs, comme on a l'habitude de le faire. L'information, ce sera tout à l'heure en tout en images avec la régie. Juste après, vous aurez la revue de la presse sénégalaise. On s'est préparé pour. Et juste après, vous aurez nos chroniqueurs sur le plateau. Comme tous les mardis mardi bu jot dañuy waxtaane lu jëm ci wàllu yoon ndax nit day def toj-toj wala jéye daal ne man xaw ma woon ne yoon da koy aaye wala da koy tere. C'est la raison pour laquelle Aladji Malick Cissé. talaata bu jot dafay dikk waxtaan ak ñun ci wàllu yoon lan moo waral bu lan amee lan moo ci daanu yoon ak taxawaayu yoon droits et devoirs car nul n'est censé ignorer la loi buñ ca jógee ñu xool suñu gafaka li nekk si suñu poos ndax PIB produit intérieur brut wala li ñuy woowee croissance est-ce que am na impact ci biir dëkk beek ni ñuy doxaleeg ni ñuy dundee Aïssatou Diop Tall, euh, c'est l'experte en, en économie, Madame Barry, reviendra sur le plateau comme tous les mardis pour nous parler d'économie avec leurs invités respectifs. Juste après la deuxième et dernière partie, nous parlons des avancées de la technologie avec Ibrahima Choy, euh, un, un fou, un savant un gars qui est excellent, qui recherche, qui fouine, qui cherche et qui retrouve des bonnes choses pour vous, chers amis téléspectateurs, et qu'on nous les montre. et en général, on est tout le temps ébahi. Il sera sur le plateau. Dans la deuxième partie, nous allons aussi parler de mode avec Ziggy qui invitera aujourd'hui euh, la Miss Liban du Sénégal et bien entendu Koumba Guissé qui va parler des femmes, de la femme euh, sénégalaise au foyer jigéen ñi nag déedéet bu ñu bëggee euh, bu ñu yëgee ne seen jëkkër mu nga commencé doxaani wala nu bañ seen jëkkër di am euh, ñaareel dañuy jël seen ay mesures nag draconiennes nag ku ci mel ne ñoom Rokhaya Mbodj la waaye day sol tubéy da ngay xool fi mu nekk noonu ci <laughs> waaw waaw waaw <laughs> mu ngay wax de Pape Samba <laughs> roqa ngay wax waxul dara waaw kay mboojo fara waaw mbooj ba ca waalo on va aller à la régie avec Ousmane la complicité vous donner l'information tout en image c'est l'actualité en image on se retrouve juste après pour la revue de la presse sénégalaise ci wàllum diplomatie am na lu ñuy wax chef de protocole lépp lu jëm ci wàllum visite d'état yi ak code vestimentaire bi ba si sax waxtaan yi moo koy planifier boobu la mission Bruno Diatta doon ko doxal ba mu jaar yoon. xamaloo ko baax a baax baax suñu aada moo di diplomate la. moo di conseiller aux affaires étrangères kooku la am maitrise def concours ENAM def section diplomatique ENAM def ans. soog a nekk conseiller aux affaires étrangères bu paree nag ah ñu seet ndax mun nga ko nekk ndax naa ko nekk il faut que tey il faut nga nekk professeur il faut nga xam liggéey bi quoi. leneen mën a jàpp ci chef de protocole bu présidence de la république mooy kuy préparer déplacement officiel bu njiitu réew mi mu ci Sénégal wala ci biti réew naka noonu lépp lu jëm ci wàllum visite bilatérale yi ak sommet yi. il faut mu xam métier il faut mu xam naka la mbir mi war a bu ñu war a placer président de la république premier ministre membre du gouvernement assemblée nationale ñëpp la bon na ko def quoi voilà bu chef d'état ñëwee ku bees di ko war ko teeru fa ñu ko war a teeru nañ war a def cérémonie bi nañ war a placer personnalité yooyu quoi. ko war a nekk mooy koo xam ne jàng na ko parce que chef de protocole kenn du ko improviser da nga koy jàng ba mokkal ko nga mën ko doon yaa ngi dégg parce que tu rencontres n'importe qui des des rois. des empereurs ah des chefs d'État ñoo ñëpp yaa leen di gérer. liggéeyu protocole yamul foofu mission préparatoire répérage jëm ci wàllum déplacement yi invitation yi ak tërinu table yi loxo mu ngi ci biir ci gàttal facilitateur la. li ñuy accueillir le ministre ak li ñuy accueillir premier ministre ak li ñuy accueillir président de la République bokkul xam nga bu ñu accueillir président de la République dafa dañ ko rendre les honneurs armée dafay ñëw ensuite dañuy ranger personnalité ñu taxaw mais ministre buy ñëw loolu arbitre du ñëw dañ koy accueillir rek à la coupée de l' avion yóbbu ko bu nee premier ministre am na ay personnalités itam dañuy ñëw. bi ñu nekkee à l' opposition ma doon chef de protocole Abdoulaye Wade bu ñu ñëwee au pouvoir am dëgg na benn journal di ne Abdoulaye ave avait hésité mu ngi hésité entre Mboup et kii. il n'a jamais hésité parce que c'est que le protocole est une chance xamoon na ne man mënu ma ko nekk ordinateur la te daf ko jàng daf ko il a fait l'ENAM dafa dem ENAM. jënn comme administrateur civil xam naa il a fait la diplomatie def na diplomatie ah parce que c'est un diplomate. chef de protocole mu war a nekk kuy anticiper naka noonu muy fàgganiku te su ko laajee mu réagir en temps réel liggéeyam mu si ànd ak cabinet bu président de la république naka noonu service yu nekk ca présidence kaaraange gi presse bi intendance ak commandement militaire bu nekk ca pale service de l'administration ak cellule diplomatique bi ñoom ñëpp dafay ànd di collaborer ñoom. fàttaleku ay jaar-jaar bu chef de protocole bu présidence moom mi Bruno Diatta kii di Pierre Goudiaby Atepa leader bu mouvement Sénégal rek àndaloon ak moom ci lu tollook juróom fukki at dellu duñu xamal ana lan moo nekkoon ab particularité ci ki génn àdduna ku baax la woon euh, dafa mel ni moo doon esprit suñu club parce que on suñu kuréel gi les amis Bruno dafa mel nii moo doon bopp bopp boppi kuréel gi parce que euh, d'abord dafa yaru parce que ñun ñëpp nag man xam ngeen sama affaire xam ngeen sama affaire booy dakaar la waaye nag moom bokkuloon caractère ak man xarit la ànd nañu juróom fukki at sama mbokk la parce que ñaari doom yu jigéen la am kenn kii sama doomu rakk bu jigéen mooy jëkkëram yile leader politique nag nekkoon ay collaborateur yu Bruno Diatta di rafetlu aspect dimensionnel bu nit ki loolu sax waral bu mu génnee àdduna gis nañu homme politique yépp a doon benn. Senghor à nos jours ku ci nekk jaar nga ci moom te kenn mënul nettali lu ñaaw loo xam mës na ko dox sa diggante ay mais sagam moo ko man nag ñun war nañu ko war a war a mën bu ñu koy dëj ñëppay daje parti politique syndicaliste. chef religieux ñëpp ay daje ku nekk lëng sa moroom fóon sa morom foog moom rek bu subaa ñu commencé xuloo ak saagante waat donc amul njariñ dañu war ndaje yu mel ak surtout moom fii mu demee ñu dëgg ma ay élection réew mi ñi coow jëm fi ñi coow jëm fële. ngi rafetlu li nga xam ne président Macky Sall def na ko parce que ci li ma mën a nemmeeku gisaguma chef d'état bu décidé dugg ci avion am naa ne dafay dem bërëb. ñu di messe bi nag dinañ ko amal jeudi yenn ci ay kilifa réew bi jàpp ne nit yi mag yépp nekk ci dëkk bi war nañ ko fekkee ndaxte ab légende moo daal génn àdduna. ci boroom camion yu mag yi ñuy woowee grand mën nañu wax kontante amu fa ndax loolu nag ginnaaw changement yi nga xamante ni indi nañ ko ci li ñuy woowee charge à l'essieu maanaam pesage bi nga xamante ne moom lañuy ñuy camion yiy daw ci zone UEMOA ñu xool ndax seen pois bi ëpp na wala ëppul naqar boobu nag ñu wone ko ci ab grève bu nga xamante ne dañ ci artu gouvernement bi lii nag mu nekk situation bu nga xamante ne koom réew mi moom nax ko fekkee. ñu ngi toll nii bu ñuy jëndee am nañu ay commandes yoo xam ne sax fi toll nii boo wootee kooku suur boo woot naan dama am woot te war nañu leen libéré mu ñu a jëm war a dem Louga mais fi ko kooku boo woo gars yi dañuy dem gerew moo tax mënuñoo def mënuñoo génn tey dëkk su nekkee ñoom arrêté nañu suñu nekkee engrais grève ça dire que marchandise yooyu dootul dem. dafay mel ni aussi marchandise yoo xam ne euh, ay dëkk yu mel ni comme le Mali nga xam ne seen marchandise yuy jóge bitim réew yëpp port de Dakar lay aw su ñëwee ci port de Dakar lépp lu ci ëpp ci seen marchandise gros porteurs yi ñoo leen di yóbbu mooy camion yu mag yi moo leen war a yóbbu camion yu mag yoo xam ne yu Mali la wala yu Sénégal moo leen war a yóbbu ba Mali bu boobaa nag su su su ñu nekkee en grève rek ça veut dire que produit yooyu dootul dem mm-hmm. te donc su nekkee dëkk boo xam ne produit yu muy importé yëpp dootul dem foofu ay rupture lay am moom mooy day dem bay ñàkk ci ci marché yi te loolu dafay wàññi koom-koomu réew moom mm-hmm. nit ñi dootuñu jënd consommation dootul am dafay wàññeeku mm-hmm. loolu dafay wàññi richesse u réew moom mm-hmm. te loolu nag euh, baaxul ci kom koomu réew analise bi nga xamante ni ñi seen xam-xam wàcc ci wàllu koom def nañ ko ci ñii di grossiste yi ñoom daal di nañ koy approuvé maanaam dëggal ko ndax ñoom nee nañ gis nañ lii di seen chiffre d'affaires daal di wàññeeku ah dañu amuloo oto boo ko defar mu dem mu dem yóbbul ko ko. donc koy perte koy foofu la commencé. bu fekkoon yaa ngi waroon a jaay tey lu mat cinq camions yi soble mu war a génn dëkk bi nga tey mu mënoo jaay sax cinquante sacs mu génn dëkk bi kooku moom perte maa moom il est vrai nag comme euh, ni ñu ko doon waxee léegi mooy euh, euh, gros porteurs yi lu ci bëri ci seen transport yi xam nga suñu dëkk Afrique yi ñoom noonu la ñoom dañu teg le maximum rek pour yóbbu. war que nag lu nekk dafa am ay normes dafa am organisation moi je pense que loolu aussi lu am importance ci suñu koom-koom transporteur yi nag ñu ngi fustiger li nga xamante ne mooy recule bi nguur gi def ci wàllu application bu règlement 14 bi union économique et monétaire ouest africaine ñu koy woowee UEMOA génn bi nga xamante ne kii di ministre bi yor wàllu dem beeg dikk bi defoon na ko ngir daal di xamle volonté nguur gi daal di appliquer li nga xamante ne mooy prix yi su wàllu surplus ñeenti junni ba juróom-ñetti téeméer ci wàllu trafic intérieur bi waaye it fukki junni ak ñaar ba ñaari junni ak ak ñeent ci wàllu international loolu nag mu nekk situation bu nga xamante ne ferñeentewu leen muy doon guléet maître Abdoulaye Wade ak maître Madické Niang di daje ginnaaw bataaxal yoo xamante ni doon nañ ko wéccoo ñoom ñaar nag bu ñu sukkandikoo ci wàllu observateur dañoo war a àddu ci nan la ñu war a doxalee jëmale ko ci élection présidentielle yi mu nekk nag ndaje boo xamante ni ñu ngi koy amal ci jamono joo xam ni maitre Madické Niang dafa mel ni ku gën a fës ñi nga xamante ni sax seen xam-xam dafa màcc ci wàllum politique jàpp ni maître Madické Niang dafa war a dëggal boppam. occasion la ci Madické Niang bi nga xam ne ñu ngi dem dawaa tey pour gisee ak président Abdoulaye Wade mu jàkkaarloo moom wax ko dëgg ne ko ah man kat bañu ma la boobu ba léegi maa ngi am yow la jox la waaye nag fu ni candidat euh, Karim Wade mënut a jàll damaa bëgg ñu xool plan bi plan boobu bi nag Madické Niang xool ko ci ay bëtam ne ko man la. ndax fi may wax ak am na ay responsable ak ay militants yoo xam ne sama ginnaaw am na yeneen parti ak yeneen coalition nekk sama ginnaaw damaa bëgg yow ñëw jox ma loxo ma jàpp la nga jàpp ma nekk sama ginnaaw baatalal ma ñu mën a dem jàkkaarloo Macky kon wax ko dëgg euh, réclamer li mu réclamer ci a nekk nag ci ginnaaw di am li ñoo xam ne ñoom lay jàpp di la gaaw mu nekk nag doxalin boo xamante ni boo moyulee ndar naa jur coow ndax ci ay jamono loolee moo fi indi woon coow li ci biir parti démocratique sénégalais waaye nag mu mel ni mbir yi coppite am na ci. Madické Niang fi mu toll mënutul del ginnaaw ndax euh, toll na foo xam ni ma la ko waxee am na ñu nekk ci ñu nekk ci ginnaaw ànd ak euh, na ñu euh, nekk bi moom am na ñoo xam ne nekkuñ ci parti bi ay membres supérieurs yi ay yan coalition ànd nañu ak moom tax ci dolli Madické Niang nag dama yaakaar ne am na ambition bu nekk nag xanaa li li Abdoulaye Wade rek ba mu faatu mu taxaw ne jeex na déedéet moom ci boppam dafa war a taxaw nag jël responsabilité kon occasion la tey yaakaar naa ne yaakaar naa ne Abdoulaye Wade xamal ko ne ko plan A bii di Karim Wade mënut léegi leen laa bëgg mooy plan B muy taxawal ko nga ñëw jox ma loxo ma jox la nga jiite ma yaay sama baay defal ma campagne bu ko waxee bu ko Abdoulaye Wade nangoo ko alhamdulilah sukuri bu fekkee tamit nekk nag mu jël ay responsabilité am xam ne kat ah kon nag boo teetoon daal di nag ay responsabilité mu dem ñi nga xam ne ñu la àndal dem nag euh, samp ndandam ci biir arène bi lu mu am jël ndaje bi ñuy amale ci Doha ñu bari jàpp ni boo moylee PDS fa lay jaar daal di dund wala sax mu daal di nax saay ñi nga xamante ni nag seen xam-xam dafa màcc ci wàllum politik jàpp ni ki nga xamante ni moom moo jiite PDS jot na mu xoolaat mbir yi. <clears throat> jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ci topp bi ngeen ñuy topp ak ànd bu rafet bi ngeen di wéy di ànd ak programme mu 2 ba fàttali leen ne yéen a ngi ci matin c'est à nous ah, bu ngeen gisee alkaati bi nekk ci euh, euh, booru Grand Théâtre bi tey gérer circulation bi tey rusloo na ma rus bu métti dama ko gis rek def ni mu xool fale ma obligé nekk fa di wokkatu naa nii c'est-à-dire parce que y avait beaucoup de gens qui me regardaient <laughs> gàcce bul ma koy tagati fajar gi damay day teel daal. Aïcha, on y va pour, euh, avec la revue de la presse sénégalaise permettre à la aux Sénégalais de regarder en même temps di jënd tey dañ leen di wax bu ci nekk ci ñoom la mu xëy xibaar tey Dakar Time on commence avec Dakar Time qui nous informe que l'État doit 48 milliards État bu Sénégal 48 milliards la yoreel la yoreel Sénélec 105 milliards la yoreel pétrolier yi Dakar Time titré dans le secteur de l'énergie en crise loolu moom mooy la une du journal Dakar Time ku bëgg a xam la ca toftalu na nga jënd journal bi te yër ko musiba mbàbb kumba moo gane si Sénégal ci wàllu wér-gu-yaram surtout ñi nga xam ne ñoo amee jàngoroy sida source a du ñu xibaar ne am na ay fournisseur indiens yuy indi Sénégal ay antirétroviraux non conformes aux besoins des malades du sida ki xam ne loolu moom moo di Ciré Lo président bi réseau national des associations vivant avec le VIH sida musiba mbàbb kumba googa journal bi xibaar à sa une Qui l'eût cru quel français belle conjugaison ñu jàll ci Sud Quotidien bi nga xam ne dikk nag ñun ci njàng meek njàngale fii ci Sénégal gestion bi nga xam ne moom la ñu tëral ngir système éducatif bi fii ci Sénégal mu mën a dox jaar yoon dafa mel ne lajj gu metti la daal di lajj Sud Quotidien moo xëy xibaar daal di jël ma nataalu jëwriñ di ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi ca kanam journal bi la ko taf échec bi ñu am ci année 2017 ak ci jëm ci wàllu bac BFM ak CFE aro daal ne Serigne Mbaye mii dara la journal baa ko xibaar Sud Quotidien ñu jàll ci beneen mbir moo xam ne ñeel na wàllu njàng meek njàngale bi eh, tribune la nekk rentrée scolaire 2018 2019 des grosses perturbations mu vue musiba naaru laay xaaloo teel na dimbali leen ñu rek ñu jàng leen ñu daloon daaw bañ ñoo dalaat waaye journal bi moom daal nee bu ñu sàgganul atum ren ji njàng ma na mu meloon daaw nu ko raw lay mel journal bi xëy xibaar ku bëgg a xam la ca topp jëndal te yër kon bu mu njaam ba tey mu ngi am fii ci Sénégal ndax ambassade bu Soudan fii ci Dakar L'As Quotidien moo xëy du ñu xibaar ne personnel ba fay liggéey tey ay sénégalais dañ leen a jàppee jaam du samay kàddu nag waaye kii di G Ndiaye moo xëy du ñu xibaar ne ñoom ñi fay liggéey tey ay sénégalais li ko dalee suba ba deux heures dañuy liggéey te duñu taxaw ñu daal di wane bu mu njaam journal bi génne xibaar booba. lu ci mën ci am suñu relation diplomatique nañ ko càmbaraat waxaat ci diplomatie Sénégal ak ñi nga xam ne ñoom la ñu jox ay passeport diplomatique affaire étrangère ñi nga xam ne ñoom ñoo am ay passeport diplomatique daal fi mu nekk nii danoo mer ba futt ndax ñoom seen passeport diplomatique yooyu daa mel ne jëriñatu leen lu bari ku bëgg a xam la ca topp ak na loola demee journal bi di réew mi quotidien xëy na xibaar ñu ci tey ñu dem ci leneen li nga xam ne moo ñeel wàllu yoon ak wàllu langu politique gi euh, Barthélémy Dias moom dafa mel ne jàppal nañ ko bës boo xam ne moom lañ ko nar a atte moom ak njaga Diouf waaw kay ñoom ñaar ñoo bokk même jour bu ñu leen di atte les éco xëy di ñu ko xibaar daal ne Barthélémy Diaz dans un tourbillon judiciaire ñu jóge ci wàll woowa dem ca la ca topp Alioune mi nga xam ne moom moo fi nekkal roi de l'homme dem ca Mali dëkk bi ñu jege lool te nu bokkoon sax fédération du Mali ak Sénégal muy wax ci wàllu liberté Mali ak seen taskatu xibaar ya alerte de tin les alertes de Tine titre le journal Les Si le régime ne met pas en place une justice indépendante il le paiera cher waaw ah, kay loolu de mooy souffrance u Afrique moom alunti na ko wax mu nga ca journal booba di le quotidien l'observateur xëy di ñu xabaar ci li nga xam ne moo amoon juróom-ñeenti weer a ngi nii bu doon xale la ñu ne tey la juddu mbaa ñu ngi ci waaj wa waaj taay ga fa mooy ña ñu amoon ña ñu fetaloon ca biir Casamance ba boo waxee Bofa sa xel dem ca guerre dem ca rebelle dem ca Casamance ñoom nee nañu ñu ngi dund dund gu déggën ku bëgg xam lañ ca toftal Edouard da Silva mi nga xam ne mooy chef de village ba am na lu mu dénk suñu ay naatango ci l'observateur journal bee ngi ci koy xibaar ñu dem ci beneen mbir boo xam ne mu ngi am ci wàllu banditisme financier de haut vol wallaay libération nee na 364 millions de francs CFA la ñu sàcc foofa ca ASECNA trois cent soixante quatre millions de francs CFA volés à l'ASECNA banditisme financier de haut vol xanaa kon ñi sàcc ginaar am nañ programme Cheikh Kanté moom bu ñu waxee ci wàllu xaalis l'exclusif xëy duñu xibaar ne Cheikh Kanté daal yoratul furaas daadu xënden da ngay seet yi xibaar rek ki fi nekkoon njiitul port autonome de Dakar fi mu nekk nii la mu daan jox ña mu daan nekkal jëmale ko ci cinq ba 10 millions ci ay appui am dañ koo wàññi léegi nag cent mille francs la lan daan jox lay joxe moom c'est moom ñooñ ko ñi ko daan jàppale di ko jox moom por directeur port autonome de Dakar bi li ko dalee juróomi million ba fukki million léegi ñaar fukki junni képp lañ koy jox fi mu nekk nii mu ngi ci ay guddi yu bët setagul du samay kaddu l'exclusif moo xëy duñu ko xibaar <laughs> nguur daa neex frappe euh, frappé par euh, la conjoncture sénégalais yi dund jafe-jafe vox populi xëy duñu xibaar ne sénégalais yi lañ daan jënd en gros léegi détail lañ koy jënd waaw kay ku daa jënd carton meew mbala saaku ceeb léegi da ngay peesalu ndax réew mi amut xaalis guut ak lañ dugg goo xam ne xam nañ fu ñu tàmbalee waaye xamuñ fu ñu yem vox public xëy dinu ko xibaar ku ci bëgg am lu la leer da ngay gis kon nu ko mbuus nii gis nga tamaate mbuus mu moutarde mbuus xorom mbuus waaw bu mbuus transport bi rek en tournée dans la campagne kon ñu dem ci wàllu politique ba tey zoom info di ñu xibaar ne ki nga xam ne moo di ABC fu waa APR jaar ngir parrainage moom mu jaar fa de parrainage naan seen citoyens yi dañ leen bàyyi ci euh, ay euh, dénuement total moom ABC mu ngay xamal ne centre de sanitaire yi tagga témbe yoon yi jaar pour nga dem booy faju wala boo amee gàllankoor ba tey mu ngaa sooxe fi mu nekk nii ku nekkul ndakaaru wala nga jege ville yu mag yi doo dem am scolarisation journal bi titré l'APR parraine ABC déparraine Zoom Info moo ñu ko xibaar ñu jàll ci Cheikh Tidiane Gadio mi ñu jox kàddu ci 24 heures mu xëy ñu xibaar moom euh, ki nga xam ne moo amoon jafe-jafe foofa ca Amérique ak chinois ba xaw ma nu mu def euh, ak euh, fu mu toll ak loola Cheikh Tidiane Gadio à la classe politique sus s'inspire du modèle de Bruno Diatta waaw kay. ku du baax mbaa nga gën 24 heures moo nu ko xibaar moom euh, Cheikh Tidiane Gadio nee na ñi nekk ci langug politique gi danoo war a xool ci Bruno Diatta waaye Bruno moom c'était un technocrate si je ne me trompe pas. négociation bi nga xam ne moom moo am ci euh, diggante Sénélec ak ña nga xam ne ñoom ñooy euh, seeni digale coup de jeune pour la Sénélec loolu la këru yéenekaay bi di enquête xëy xibaar ñu daal na fi mu nekk nii Sénélec kon mu ngaa def lu mu mën ci jafe yi nga xam ne moom la ñu amoon. ci wàllu euh, énergie ba fi fi mu nekk nii ñu jëm koo saafara kon Washington DC foofu noonu la ñuy euh, terminer li nga xam ne moom moo di négociation yooyu nga xam ne moo war a dox ci euh, senelek ak ña ñuy jàppale ngir nu am courant bi M M MCC ok ñu jàll ci la Soleil yéen kaay mi xëy du ñu xibaar ne Touba Mbacké moom lancement des travaux d'assainissement premier système à l'égout pour Touba kon Touba. ñoom ñu ngi door a jot ci foo xam ne bu ñu tuuree ndox du nekk ci seen waaye day jaar ci ay euh, canalisation 61 000 ménages bénéficiaires kon lu ko tolloog juróom benn fukki junni ak benn yi doomu aadama dinañ jot ca loolu nga xam ne moo di branchement yooyu ñu jóge ci euh, xibaar yi daal di jàll ci ba tey euh, geneen wàll mu di tàggat yaram trophée bi nga xam ne moom la ñu jóg nag moom mooy diggante sala Cristiano Ronaldo ak Modric mi nga xamante ne nii ñoom ñoo war a jongante li nga xam ne moo di ballon d'or xel daal di jëm ci ki nga xam ne moom moo di Mohamed Salah gardien de but bi fi nekkoon euh, ba tey mu ngi fiit euh, ci gaynde yu Sénégal jàllo de numéro 1 à numéro 3 journal bi daal di sampu laaj kon suñu gaynde yu jigéen yooyu nga xam ne ñoo toj fi mu nekk nii Espagne ñoom tey lañu war a jàkkoonteeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Siin daf leen ndànk nag danoo mën a defar ay faux dugal bi fekk fals la. de détrône Ronaldo titre de journal record pour terminer waaw kay kon Modric yanu na xaw xew ma Modric a ngi nii Ballon d'Or Modric xamoon naa ni Ronaldo bu demee yow la waaw the best moo xamoon naa ko waaw waaw <laughs> the best kay du du eh même Ballon d'Or Modric lay door Ronaldo maa pare ci moom faal Ronaldo ni ma paree ci moom sax dafa ëpp sunu lamb la ñuy daal di jeexalee Balla Gaye Sa gagner avec la manière ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo doon duubal lees journal bi di sunu làmb xëy di xabaar ne ñoom ñu ngi jëm ci saison boo xam ne du yomb benn yoon waaye li nu bëgg ñoom ñaar ñëpp seen yéene ak ñu ñuy bëri sax de xam naa indiwunu leen waaye ñoom it seen yéene mooy gagner avec la manière guy gi 19 victoires 10 défaites et ces poulains sont en flambé en kon da ngay xool lii rek. dégg nga xool muy naan wax leen ma dégg wane googa ca xibaar boobu la daal di ndarkeppee li nga xam ne moom la këru yéenekaay yi xëy bind tey daal cay jaare saraax nuyu madame Bari mi nga xam ne boobu ba léegi maa ngi koo gis léeg nga wax finance rek mu tiit ne. <laughs> elle s'intéresse vraiment à ça c'est devenu finalement une obsession je me pose la question. ndax jëkkëram du ko jox paquet suukar mu ne day koy compter comme économiquement <laughs> pour ne pas avoir des problèmes jusqu'à la fin du mois <laughs> comme le cliché des enseignants qui calculent tout paquet war nga paquet suukar. est ce que Diop daal bonjour et bienvenue. bonjour Pape Seydi bonjour ñi nga xamante ne yéen a bokkal plateau bi Ibou suñu tonton bi ak euh, El Hadj Malick Cissé di nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo safoo di seetaan la 2STV rawatina seen matinal bi ce matin c'est à nous. plus particulièrement waa Malika ak waa Melun Limoges je vous dis jaajëf. jaajëf arrêtez. <laughs> alors aujourd'hui nous allons parler de la grève des gros porteurs actuellement ñoom euh, dañu dañu menacé ñi nga xamante ne ñooy euh, ñi fi nekk ci nguur gi que ni dañuy dem grève te déjà grève bi entamé nañ ko dem ba si altine bi loolu nag mu fas yéene jural ay pertes yu énorme ñu di économie nationale bi. donc dinañ ci waxtaan ak suñu expert en la matière di professeur Oumar Ba fii ak euh, quelques. waaw gros porteur mooy ah. nga xam ne ñoom ñooy transporter marchandises yi. Hmm. à l'intérieur du pays mais aussi à l'extérieur du pays ñu gën ci ràññee camion yi ñuy woowee balien yi. Hmm. yii di daw Mali Dakar ak corridor euh, ko Dakar. ñooñu de bu ñu rêvé dina noppalaale suñu tali boobu digg diggalu Fatick ak euh, Kaolack. xaw nañ koo yàq nag. tey te loolu sax bokk na ci source de grève bi parce que pesage à l'essieu bi moom la ñu leen facturer ci loolu parce que xam nga en général dafa nekk ay camions yu nga xam te ne am nañ doole ba pare li ñuy yeb dafa bari tellement léegi pois boobu noonu dafa bokk ci li nga xam te ne dafay yàq tali yi tali yi di toj et léegi nag pour ñu. gën a économiser affaire yi ñu bañ di nekk cinq ans bu nekk di defaraat ay tali lu ci mel ni ak Kolda Fatick bi léegi nag ñu exiger leen euh, pesage à l'essieu te ak li nga xamante ne mooy euh, article 14 bu UEMOA ci wàllu boobu mais nag ñoom nangooguñu ci loolu mais dinañ ci gën a xuus jërëjëf dinañ ci dellu siwaat kon ngeen xool ba xam fan la wànnante di mujjee ki gëtëm ak ñooña nga xam ne dañoo bëgg a gëréw comme Kaolack moom suñu jaaykatu garab yooyu nee na dañuy gëréw parce que yooyu garab yooyu mënalul leen dara dangay ngay seet yooyu fem fem fem yooyu Kaolack yi di def rek boo taalul garab yo dañ lay ne la danga noo fàtte tey te xam nga loolu aussi faut faut qu'on arrête avec les yow de Kaolack ah Alaaji Malick Cissé ñu ngi lay nuyu te di la dalal di la ziar ah, Pape Sidi man lay nuyu di la dalal di la ziar euh, di nuyu aussi Ibrahima di nuyu Alassane Seck di nuyu euh, Aïssatou Diop Tall maanaam bari di nuyu aussi mbokk téléspectateurs yu ñu seetaan mhm. saa su nekk si émission ce matin seetaanu Alassane Seck mooy sa gan lan ngeen nar a waxtaane balaa boobu tey ñu fas waxtaane taxawaayu ci wàllum ak ak yelleefu doomu aadama ban responsabilité la si état am LSDH aussi ban rôle la si joué violation des droits de l'homme ñu koy faral dégg lan moo si taxawaayu Sénégal ba position la Sénégal am situation détenue aussi bu sa kanamee aussi ñu yaatal ko. La loi s'est faite par les hommes pas l'inverse nous allons déjà dire bonjour à notre invité monsieur Alassane sur le plateau avec nous bonjour. bonjour maa ngi leen di sant yàlla bu baax a baax. maa ngi def ak alhamdulilah. sekk sa ginaar. jërëjëf ah donc nga sant yow. Fall ah Fall Birame Fall. <laughs> da ngay seet loolu. waaw même bi nga xëyee loo door mm, mburoog ndambe mburoog thon. non non man mburoog ndambe nag le matin moom café café noir rek. café noir ak tuuti pain waaw pain de nuit. <laughs> xam nga fi intellectuel yooyu. ñun ñu ko def ñun dañuy xëy rek dóor ay mu <laughs> forox bool noonu. non man mag laa léegi loolu bàyyi naa ko léegi baaxul sama biir bi. monsieur Seck merci beaucoup d'être parmi nous. alors nous allons euh, dire bonjour à l'expert celui qui va chercher, qui va fouiner, qui va trouver des choses pour nous imprégner de ce qu'on appelle l'avancement de la technologie qui nous impacte au quotidien. Ces choses que les innovateurs inventent, il va les chercher, il nous les amène sur le plateau et beaucoup de téléspectateurs apprécient. Il s'appelle Ibrahima, Iboutik on l'appelle. Monsieur Thierry, vous allez bien Très bien, merci. Baa yaa ngi si jàmm. sant yàlla. naka yite yi. ça va maa ngi lay nuyu te di la bàyyi nga nuyoon teg Sénégalais yi. Euh, ma lay fay di nuyu ñu ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu euh, ñi ñu seetaan ñëpp mais surtout waaye. <laughs> je à ça effectivement nu ñuy def moom mooy droit de l'homme nag ginnaaw ba ñu jàngee ba pare dañoo war a xam suñuy devoir mm-hmm. xam suñuy droit kon ñu bàyyi la yow ak euh, sëñ bi Seck. waaw Alassane Seck ñu lay dalal yow nga nekk secrétaire exécutif bu LSDH Ligue sénégalaise des droits humains nit ñi dañuy faral dégg LSDH d'abord est-ce que mën nga wax liggéeyu LSDH lan la exactement. jërëjëf El Hadj Malick Cissé jërëjëf waa 2STV ci invitation bi ma invité daa ma sawar nag di ñëw la matin parce que. nekk lu yomb. matin moom mooy il faut que nga di ko. Mm-hmm. donc maa ngi leen di sant ci invitation bi di wax ni LSDH comme ni nga ko déggee muy Ligue sénégalaise des droits humains. ki ko jiite di Assane Dioma Ndiaye di avocat ñu ngi ko sas en 2010 ñi ci ëppoon ci ñi ko sas ay avocat lañu am na sax ay magistrat yu ci bokk ba léegi donc seen seen mébét yëpp mooy def promotion d'abord di promouvoir di jox gëdd ak ak yelleef doomu aadama. gis nañ aussi ay juristes ñu ngi si biir. juristes yu bari avocat d'abord. dañu mën a wax président bi. juriste avocat la. Mhm. vice président bi Yaare Fall avocat la. Mhm. Euh, comment dire deuxième vice-présidente bi la Awa Mbengue ainsi de suite am na ay avocats Fatou Bata Sall avocate am na daal autour de dix fukki avocats yu bokk ci bureau Ligue sénégalaise des droits humains. Mm. donc seen taxawaay mooy jàppale askan wi surtout pour seen yelleef ak seen àq yàlla euh, nguur gi jox leen ko ci nu mu mën a nekkee moom mooy défense des droits de l'homme protection des droits de l'homme mais surtout promotion des droits de l'homme mais daal défense bi ak euh, protection bi moo gën a fës ci li ñuy taxaw pour jàppale askan bi fii fépp foo xam ni askan bi am na fa ay soxe wala ñu jaay ko doole ñun taxaw ci seen wet pour jàppale leen. danañ faral dégg ngeen di de alerté di tamit dànkaaf nguur gi si wàllum ak ak yelleefu doomu aadama soo doon dressé tableau bi si Sénégal situation des droits humains lan la exactement. waaw xam nga Sénégal rek comme ni ko ñu gisee ci biti Sénégal dëkk bu rafet la Sénégal am na état de Sénégal démocratie la loolu mooy li ñuy wax ci biti. mais ci biir biir ñun ñu nekk ci biir biir gis nañ ni yu bare bare bare sooxe na. yu bare bare. wala xalaatee léegi su ma xalaatee léegi xalel taalibe yi man maa ngi romb léegi di ñëw. dama ko gisee sama yaram dafay daw. ñu ciy wax di ci waxaat depuis que fukki at ak juróom ñaar fukki at. mais loolu ban jéego ngeen si def. boobu ba léegi ba LSDH nekkee fii. LSDH ñu ngi faral wax ni. taalibe yi si mbedd mi euh, nguur gi jëloon na ay décision mais teewul dañu dellusiwaat yéen boobu ba léegi yan décision ngeen jël wala yéen pas ngeen teg ngir loolu jóge fi dem nañu ba ànd ak waa RADDHO ñu porter plainte état Sénégal au niveau de l'Union africaine pour ni ñuy noote xale yi ndaw yi am na foofu bërki démb am na def naa ni 2014 amoon nañu ndam ci au niveau de l'Union africaine à Addis Abeba ci bu ñu porter plainte Sénégal ci ñàkk taxawu bu ñàkk taxawu xale yi loolu bërki démb la chaque jour ñuy taxaw di ànd ak euh, association yi jàppale xale yi di taxaw di xeex pour xale yi seen droit jël ko donc bu ñu état ñun du amuñu doole état état moo am moyen moo am légalité moo am légitimité. Mhm. ñu dañu def lu dul ñaxt joytu dénoncer wala mën a yem ñu ngi koy def. effectivement avec nos moyens très limité mais li ñuy wax daal moom mooy nekk lu yomb en Afrique que ngay xeex loo nekkee ci ak yelleefu doomu aadama. léegi su weesoo xale yi aussi situation des détenus. surtout loolu beneen affaire la ndax gis ah, nañ aussi kaso bi taxawaay yi nga xamante ni ñu ngi tëj kaso. Mhm. nañu nekkee dankaloo beeg yooyu. même sax présence avocat ñu ngi ko doon wax règlement 5 bu UEMOA loolu tamit euh, fan ngeen si tool. alaaji loolu nag mooy sunu mooy sunu sunu combat. lu ñu wax combat euh, final. Mhm. parce que man am naa chance bokk naa ci ñëpp bokkoon ci observateur des lieux de privation de liberté ONLPL bokkoon naa ci. Mhm. am naa fa 20 mois dem naa ci kaso yu bari Sénégal Kolda Sédhiou ah Rebeuss ki Demb Camp Pénal Cap Manuel mais soo xoolee nit ñi fa nekk nga ni ndax ñi ay nit lañ wala du ay nit tellement dafa metti mhm. mënoo ko imaginer. que ñu ni nit mérité loolu quel que par ailleurs lu mu def ci ay ay fotom donc loolu lu metti la Sénégal gisuñu li ñu jaaxal moom mooy ñun euh, euh, Sénégal en 2018 que Sénégal état bi mosul tabax benn kaso depuis 1960 kaso bi nekk Rebeuss 1926 wala 29. yeneen yi am yëpp da nga koy tappa tappal maasale ko joxe ko. mais am na lu ñu tegoon de Sébikotane. mu leen déglee. déglee nañ ko depuis presque ay at man gisaguma ma léegi ñu koy wax. parce que malheureusement Sénégal dafa gëm. on parle depuis 2013 depuis tabax ay kaso. <laughs> loolu mooy wax ji malheureusement euh, laaj Malick et c' ça. cliché très fort. moom jaaxal parce que depuis depuis mille neuf depuis 1863 à Saint-Louis yow waa Ndar nga. Mhm. tabaxoon Sénégal kaso en tant que tel. il n'y en a eu que deux saint Dakar Rebeuss li si ëpp yëpp ay ancienne écurie yu mel ne Kaolack wala à Louga ancienne écurie fas lan def ay taw ay tabax pour kaso il y en loolu mooy kéemaan mu jaaxal nit ñi que ñu mën a jàppalu toll ne fukki junni nit ak euh, ak ak ñetti téeméer 10 300 détenus ñoo nekk ci kaso bi condition yoo xam ne mënoo ko imaginer il faut nga dem xool leen pour mën ko gëm doon da ngay mm. Kolda dem naa daa man danañ am kersa day am 40 personnes ci benn néeg benn néeg amul benn toilette la am mhm. toilette bi amul bunt ci bu ko respecter la dignité humaine ah. surtout la dignité humaine Rebeuss bi amoon na 200 personnes dans les chambres. 200 mhm. ci benn toilette. j'ai vu j'ai vu 200. 200 personnes 200 personnes alors que la chambre devait compter 40 60 personnes. nee na actuellement à Rebeuss y ñaari junni ak ñaar ñaar téeméeri nit ci biir Rebeuss Rebeuss waroon contenir huit cent personnes mooy juróom-ñetti téeméer mu am ñett trois fois plus moo am Sénégal. amuñu benn initiative. man damay génn euh, ci cadre boobu noonu ñëw ci cadre euh, di ñëw bi benn ci yenn kaay yi titré maanaam sénégalais yi nga xamante ne ñooy liggéey ci ambassade. Mhm. Soudan Soudan voilà tey jii loolu yéen est-ce que gens yu ni mel parce que c'est pas la première fois ñuy dégg yu ni mel. Mhm. est-ce que yéen a ngi ciy def ay jéego. waaw ah, boobu ñu ngi koy soog a dégg en même temps que yow ah. ñu ngi koy soog a dégg tey c'est vrai que c'est vrai que dans les ambassades dans certaines institutions sax du ambassades yi rek. am na fa liggéey boo xam ni am na fa jaar yoon boo xam ni. Mhm. dafa sooxe bu métti dañ leen note jaay leen doole parce que d' abord du am syndicat les gens ne sont pas syndiqués ensuite ñoom dañoo génn ci biti pour wax ko. dañuy ragal parce que personnel bi amul doole fukki nit la ñuy doon fukki nit ak juróom pour dénoncer ni ñoom d' accord ñu ci loolu donc loolu mooy jafe bis bu ñu ko yëgee. am ci benn lettre bu ñu bind ñun dañuy def suñu démarche dem constater bind lettre kilifa gi ne ko loolu du yoon parce que du leen liggéey. maximum huit heures de temps par jour la ba maximum douze heures ça sax ci secteur bi. mais kenn amul droit liggéeyoo nit six heures du matin ba vingt deux heures amul fenn ci àddina. Mhm. donc yooyu am na malheureusement mais pour l'instant ñun amagoon ci benn xabaar bu bees. mais gis nañ aussi kaaw Sénégalais bii di euh, Omar moom nga xamante ni dafa amoon ay problème ak militaire français yi. Mhm. ba gendre cong amoon enquête bi léegi dañ ko jox brigade prévôtale. Mhm.

di war ko def moom mooy dénoncer na nañu wax nañu c'est pas normal ñu ngi xaar di déglu fu loolu na wanante mu jëkk ay ay bëtam mais ñu ngi taxaw vigilant di xool vraiment xam ni loolu jaay doole la xëy na soldat tubaab bi yaakaar na ba léegi c'est une ancienne colonie donc ñun jot na ci Sénégal pour ñu rappeler à l'ordre euh, s'il le faut. am na yaakaar ci enquête bi. am nañu ci yaakaar incha allah bi am nañu ci yaakaar bu baax parce que démb lan wax ci journal bi ni euh, version. français yi dan ni dañ ko dañ ko damat ni loolu baaxul parce que jubal li ñu wax donc yaakaar nañ en enfin dana am justice ci cas bu mel ne cas Omar Wade boobu ñuy wax. monsieur Seck bi passé le mutinerie Rebeuss amoon ñaari at. ginnaaw ba nga xamante ni ay coow amoon na fa jàbbante diggante 600 détenus yoo xamante ni bëggoon génn. ñoo ak administration élément administration pénitentiaire yi ñu jàppante ba Ibrahima Mbow génn si àdduna ñaari at yi nii famille Ibrahima Mbow di xaar enquête bi fan lay mujjee mais boobu ba léegi procureur waxoon na ni juge d'instruction ak ñoom ñi nga xamante ni ñoo amee wàllum yoon ñu ngi si mais boobu ba léegi dara sotteegul. waaw xam nga dañu am chance ñun. Mhm. à la limite Sénégal depuis presque ay cinq ans. Mhm. victime bu fi am Sénégal sunu président Ligue sénégalaise muy Assane mooy nekk avocat famille bi. Mhm. bu mujj bi Ibrahima Mbow. effectivement Assane Dioma mooy avocat famille bi. Mhm. donc dafa am foofu double rôle défenseur des droits humains au niveau de la Ligue sénégalaise ak avocat de la victime. donc ñun li ñu ci war a def def nañ ko ba pare comme li nga wax Sénégal am na enquête yu bari ñu ngi taxaw. surtout quand ça concerne la police wala boog les forces de l'ordre mhm. enquête yu bëree bëri day taxaw parce que dafa am sensibilité boo xam ni ñoom au niveau de la magistrature au niveau du parquet dañuy am blocage loolu lañ constaté di ko dénoncer dañuy travailler ensemble kan ak kan. man c'est-à-dire justice bi ak police ak gendarmerie ñoom dañuy. liggéey voilà bien sûr c'est l'état ñoom ñooy état. exact état moom am responsabilité génnee dëgg gi mais def surtout enquête bi. pour que justice soit faite loolu nag souvent am blocage au Sénégal am na enquête yu bari yoo xam ni c'est à mi-parcours la ñuy taxaw tagga témbe donc loolu gis nañ ko Sénégal di ko yàgg dénoncé nag les mm. bavures policières yàgg nañ ko def naa si barki benn émission fii ci 2STV décryptage ak Pape Alé mm. sur le bavures policières yoo xam ne dafa ëpp dayoo léegi nii mm-hmm. ndax alkaati yi dafa dem ba mel na ni àndatu na seen sagu parfois ci seen maintien de l'ordre mm. ba barki démb maa ngi gis ci euh, këru yéenekaayu euh, xarala yu mujj yi internet bi ñu ne police bu Sénégal moom moo nekk meilleure police de l'Afrique euh, cinquième place police euh, mondiale. je mhm. je pense que cette information a eu. dama koy dama koy confirmer parce que récemment maa ngi waa police nationale. Mhm. andi woon nañ benn élément rédaction ma amoon chance traité ko. Mhm. voilà donc euh, c'était aux États-Unis mais ñi nga ñi nga xamante ne ñooy nigérian yi ak beneen pays encore dama fàtte ñoom dañu inspiré wu ci modèle lu Sénégal. parce que nee nañ Sénégal fait partie. ci seen police moo gën a ay mën nañu wax ci Afrique de l'Ouest mhm. donc euh, c'est pas ex ñu dem ba États-Unis jël euh, nu mu tuddee sax modèle euh, modèle bu Sénégal di ko fa teg di jàng. ñun daal te fii ba tey dañu naan am na problème. mais je me dis que ni. fii kay amul problème ndànk. voilà ñun dañoo ragal alkaati ñun. waaw c'est tant mieux ko judduwaale. suñu ne takku der nii dañ koy ragal. mais mais mooy sax mooy. xoolal bu yàgg it parce que xam nga nekkee xale soo gisee auto police da ngay daw. waaw loolu ici dans le Saloum. ou dans le Bawol où je viens. les gens ils vont chez les marabouts pour ñu defaral leen téere boo xam ne boo ko takkee policier du la jege. c'est-à-dire c'est comme si des dañu mel ne ay comme ni ñuy dawee dëmm wala comme ni ñuy dawee maladie. c'est-à-dire vraiment ça existe il y a vraiment des gens dans cette société sénégalaise qui ont toujours. la peur du policier la peur du policier qui devrait pourtant. vraiment c'est juste s'occuper de la sécurité des gens et de leurs biens c'est d'ailleurs l'idéal de la police mais par rapport ak liggéey di waxtaanee xam naa mooy euh, indi ci sama euh, laaj. Euh, Amnesty International mhm. rëq na sunu ndig bokk ci Sénégal bokk ci réew yi gën a taggatémbe woow yi gën a gàll góose ci wàllu doxalinu yoon te bu ñuy seet bay set sax léeg-léeg day mel ne da ngay làq doom du ba doom bu nu amee prisonnier bu mag doon koy dugal ci néeg bu baax mhm. man j'ai eu la chance d'aller dans les prisons chambre 37 chambre 38 chambre 39 yooyu ngay dégg VIP la waaw bu mooy chambre VIP kaso boobu soo fa demee ku fa dem visiter da nga xam am na chambre yoo xam ni vraiment fa la VIP. j'ai eu la chance man en tant que euh, animateur d'aller dans les prisons. Mm. les plus reculées du Sénégal j'ai été à Koutal. Mm. Ah, gis gars yi dañuy jël. c'est un camp. ca nu mu tuddee ci li ñu leen di yàkkal pour ñu lekk ko dañ koy dóor ci mur bi mu kole ah. sur le mm. Saint Coran. ils m'ont démontré dañuy jël par exemple comme genre ñànkatang lay doon. ñànkatang jagan la tudd. Oh, jagan dañ koy jël ni du weex couleur journal bi moo koy gën a weex. dañ koy jël dànk dóor ko ci miir bi mu kole prisonnier cest à boo amee ay affiches yooyu kole boo ko tafee du deñ ma gis nit ñi façon de vie bi ñuy dundee. mais yi duñ ci jëlee ay maladies. Ah, ak tëdd ak tëddante nii nit ñi ay góor seen yaram di laalante. nii à longueur de nuit amuñu benn respect de l'humanité bu am si seen biir pour wax la li am si kaso yi léeg-léeg bu ñu génnee nga gis làq doom duma doom nit day nekk ci nguur. bokkatu ci ñu woo ko ne ko kaay yaa fi defoon nangam. est-ce que loolu mën nañu wax ne ci réew mi ñu ne ñii àtte même bu ñu amee xarañte gi est-ce que ñi leen ilif ak ñay doxal loola amuñ ci loxo ba. ce qu'on dit l'État a la mainmise par rapport à la justice. Ah, lépp parce que léegi tax naa ci benn journal bu génn foofu ci sa kanam. wax nañu indépendance de la justice. voilà Alioune Tine. Alioune Tine mais c'était ça pour, pour le Mali hein. Ah, pour le Mali mais c'est valable pour le Sénégal parce que Sénégal way bi. actuellement Sénégal mooy l'indépendance de la justice. Mm. UMS chaque jour chaque deux jours ñu wax ci indépendance de la justice pour dire que li nga wax dafa am justice à deux vitesses ñi am ndey ak ñi amul ndey. Mm-hmm. ku ma am ndey ku ma amul moom am na xam nañ ko ñu ngi tous les matins ñu gis ko ñu nu xam ñu ay cas yu important ñu ni bàyyi leen liberté provisoire ñeneen ñi ñangi détention provisoire pour un même cas un même crime wala un même délit mhm. liberté provisoire détention provisoire mu am y a un ans sans pour autant être jugé. oui bien sûr non il a beaucoup de cas comme ça détention provisoire yi la moyenne bon quand c'est vrai que crime mooy nit nit ku dee ci benn dossier kooku c'est plus compliqué mooy les chambres criminelles mm-hmm. c'est vrai que temps yi sax xaw na bar am na chaque trois mois chaque mois am na léegi mbuur dinaa ne démb la commencé am euh, chambre criminelle mosul doon am dans les départements léegi day am de façon systématique mais li am ba des moom mooy dafa amaat ba léegi nii mainmise de l'exécutif sur le judiciaire kooku moom way way ne peut pas parler toujours de l'indépendance de la ah justice au Sénégal donc waaw même fii nga toogoon nii le procureur toog waaw ak ci euh, a UMS après dafa démissionné. waaw dafa démissionné magistrat moo toog fii nga toog nii. ne Sénégal état dañu war a génne seen loxo ci justice. bàyyi leen ñu def seen liggéey. mais kooku way la c'est quand même grave quand même. mais way la loolu ñëpp ko xam. alhamdulilah da ngay seetlu Malick loolu ñëpp ko xam moom. parce que démb Téliko. Souleymane Téliko Souleymane Téliko mais wax na ko presque sur tous les plateaux. Mhm. ni indépendance de la justice ba léegi c'est pas consacré parce que su bëggee ba léegi Sénégal président de l'État de la République mooy président du conseil supérieur de la magistrature mais mais c'est parti. kooku mooy la justice aussi topp si mooy vice président bi ba pare ñoom ñoo yore sa carrière yow. Hmm. su ma neexee léegi man la def benn contre ma laaj ne pour nécessité de service d'ailleurs c'est leur expression consacrée. pour nécessité de service dama la yóbbu Kédougou. mais au pire des cas c'est tout ce que tu peux récolter quand tu fais ton travail convenablement. c'est ça une affectation. affectation waaw mais affectation dans un endroit qui peut-être qui n'est pas le meilleur peut-être. loolu lépp nit la c'est pas grave. Ouais, mais moi, je, moi, je, je suis d'accord pour la justice je suis prêt à me sacrifier. toi toi c'est toi mais je dis que nit ku nekk ak ses sensibilités ses faiblesses. am na peut-être cette faiblesse. aw bi la nekk. aw bi Dakar la nekk. wala njàng mi xale bi ñu ngi Dakar wala xéwal yaa ngi Dakar et ça c'est la vérité. pour que ça soit pour l'enseignant pour l'infirmier ah la capitale. mais si on continue à faire comme ah ça ndeysaan ñun ah. le pays c'est mais moo tax il fallait qu'on le système. président de la République mënul nekk président du conseil supérieur de la magistrature ba pare bëgg nekk exécutif. mënul ne loolu moom moo ñu daal di càmbare daf ñuy wax damay jeexalee benn point sànq da nga wax wax bu am solo nga ni dignité humaine mhm. dafa nekk li nga xamante ni dañ ko war a sàmm ñu gis aussi ay paquet cigarette peut être Pape nga xamante ni moom waaw ñu gis si ay photo ah, ñu wane nit ki am loolu yéen waa LSDH est ce que jaadu na photo boobu ñuy gis si paquet cigarette bi Pape Sidi sax xam naa ne yow loolu moom Malick yaa ngi soog a wax li ma metti waaw depuis le mois de février passé ah. laa gis photo boobu dama tiit man je suis un ancien fumeur bàyyi naa tux il y a vingt ans mais j'étais scandalisé c'est vraiment mooy mot est très ma gis ay benn nit bu nu photo nit ku ñu nii à la limite na ba pare. Mm-hmm. nit ku ñuul. Mm-hmm. ñu def ko ci paquet cigarette mal yi ak paquet cigarette yëpp yi ñuy jaay Sénégal bu ma ko gisee dama tiit ma bind lettre Assane Dioma ñu bind lettre. ministre de la santé non bi ñu lettre PMI mooy Philippe Maurice mi defar Marlboro ñoom ñu ne ah ci dara dañ leen ko jox ministre de la justice de la santé moo leen jox image yi ñu war a def ci kaw paquet de l'action sociale ñu bi ñu leen mois de février 2018 ñu on est scandalisé on est effaré ci li ñu gis ci nit koo xam ne presque dafa dee su ma ko gis ci addina pour un produit à vendre ñu koy def noonu def ci nit ki image boobu pour interdire. pour aller vers la campagne de déstabilisation. Ouais, c'est pour dire aux fumeurs arrêtez. Ouais, si vous ne voulez pas ressembler c'est le pire moyen pour le faire parce que doo mën a jël nit. di yàq dignitéem koo xam ne dafa dee photo du sax dessin du beneen image jëftu yu ñuy wax mais nit ñun ni alors je je continue mon mon mon explication pour wax ni ministre la santé bi ñu la laaj depuis février répondrewul ñu def ampliation primature. defaat beneen lettre jox ko ministre du commerce ñun on est effaré gis image boobu musuñu gis benn produit dans les aux États-Unis en France en Finlande ku ñu gis benn produit dans le monde ñu war ko interdire à ce point ñu def ci ni image boobu. Mm-hmm. ñoom ñu soog a tontu barki démb ñoom ministre de la santé après six mois d'attente pour wax ni alors ñoom image boobu ñu ngi ko jëlee ci OMS. C'est tellement léger. Oh, oh, attends, mais alors, qui décide pour nous. Voilà, euh, Et l'argument est déconcertant de faiblesse que ñu wax ni euh, alors ministère euh, de la santé du Sénégal day inspiré wu ci benn image bu ñu jëlee un pauvre noir mourant et on ne sait même pas s'il y a un lien entre feebar bi. ak cigarette. Mhm. alors ah, te loolu aussi a mel ne découragé wul sa genre rien à voir ngi nii du faale wul loolu. mais booy xam na lañ la merci. donc sama gars loolu la paa bu tuxul sax day dee def campagne dama leen def campagne. Mhm. pour def forte ak toutes les associations de droits de l'homme mhm. pour wax ne image boobu dañ ko war a ci paquet parce que vraiment dafa ñaaw. bu def ci beneen en France. ñoom dañu am ay bëñ yu yàqu. des poumons loo jëf benn image nit gis la affaire bi dañu soxla c'est hideux dafa bi ci ñàkk normal nit ki xamul woon est-ce que na ko est-ce que na ko est-ce que am na benn hmm. hmm. ñu lay gërëm di la sant ma fàttali yow yaay secrétaire exécutif LSDH Ligue sénégalaise des waxtaan tamit lépp lu jëm si wàllum taxawaayu ak ak yelleef doomu aadama fii si Sénégal. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Palla sant yàlla yàlla bu baax te di la yeewi euh, ñu xam euh, ñu dalalaat sunu beneen gan mu di Omar Ba mais balaa loolu ki nga xam ne mu ngi toog ci plateau bi jàpp njàmburam fas morso njàmburam daal <laughs> euh, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm mais j'espère que ce sera votre dernière tasse de café monsieur Seck certainement <laughs> je m'en doutais un peu alors ñu dem ci geneen wàll gi nga xam ne la ñuy waxtaanee wàllu avancement de la technologie avant l'arrivée de l'invité de Aïssatou Diop Tall Ibrahima ñu dem. xool li nga xamante ne ni moom moo di euh, këf kooka nuy nuy def euh, ci wàllu avancement de la technologie les nouvelles technologies tey lan nga am. Euh, merci Pape Sidi donc tey ma indi des lunettes universelles. c'est pas mais toutes les lunettes sont universelles. Euh, pas celle-ci dina di nga xam lu tax ma wax loolu. lunette universelle lunette. après ñu xool benn deux roues enfin c'est à cheval entre deux roues une voiture euh, une euh, une automobile mais ñu gis ne deux roues boobu en fait elle se renverse jamais. <laughs> du dëgg du dëgg du dëgg. c'est pas vrai Ibu lan la wax. <laughs> une moto bu du daanu. non c'est-à-dire lu mu wax man moo ma moo ma dépassé ba léegi. deux roues qui ne se renverse jamais bu ma déggee tubaab de loolu la. <laughs> Zame moom xanaa Zame day day wuy ma xanaa Zame kay mooy boo ko booy dawal nii waaye boo ko tegee ba kaddu ko waxuma la daan waaye day xalangu mhm. wala dinañ ko gis en léegi après ñu gis moto buy dawal boppam boobu moom du ba ci yegg <laughs> euh, eh eh <laughs> le gars là il est pas normal monsieur Ba euh, vous venir dama bëgg nga témoigner li ñuy wax. bonjour bonjour et bienvenue sur le plateau de ce matin c'est à merci nu nuyu la yow moom saa yu ñu soxlaa ñu ñu xabaar ci mbiru euh, économie da nga ñuy nangu loolu professeur ñu ngi lay nuyu te di la ziar. naa ngi leen di nuyu di leen sant et di leen ziar yéen ñëpp ci invitation bi. kontaan nañ dañoo am lu nu xabaar lu rëy ay lunettes universelles ay moto bu du daanu ay moto bu dawal boppam danoo bëggoon nga fekke mm-hmm. après boo paree wax nu ci sa xalaat mm-hmm. bu dul jinne yi jege na ko Ibrahima ñu dem voilà jërëjëf encore une fois donc lunette yi ma doon wax lunette universelle euh, c'est-à-dire xam nga tey sa lunette yi euh, peut-être yow myopie moo moo la daal am na keneen koo xam ne degré moo gën a fort sa bos wala moo gën a faible sa bos boo ko joxee sa lunette dootul gis. waa mm-hmm. voilà donc lunette yi may wax nag yu universel mooy que ne koo ko mënti jox ak degré bu mu mënti euh, bu mu mënti am dafa am réglage boo xam ne bu ko defee rek dafay gis. voilà donc euh, comme ni ñu ko gisee ci image bi euh, ñu ngi ko créé ça fait déjà euh, trois à quatre ans à peu près et puis beneen avantage bi mooy que ne lunette bi cherul parce que ay européens ñoo ñëwoon safari benn dëkk Afrique Tanzanie plus particulièrement mm-hmm. donc ñu gis ne population bi dañu am ñu ci bari pratiquement 60 pour cent population bi am problème mu bët mais amuñu euh, xaalis pour mën a jënd ay lunettes déjà même pour consulter euh, ophtalmologue problème la parce qu'il y en a douze pour une population de 40 millions 12 mhm. ophtalmologues et puis seen tarif dafa cher lunettes yi euh, waxi noppi donc ñoom ñu am ñu am idée wu dem seen dëkk développer lunettes yi may expliquer ni mhm. donc dafa am ay molettes yoo xam ne si coin wu lunettes yi la nekk et puis dañu suppo superposer verres yi donc ce qui fait que dafay coulisser buy coulisser dafay euh, dafay trouver hmm. degré bi xam ne moom mooy tax bët bi euh, di gis donc patient bi moo koy defal réglage ba gis ne mu ngi gis euh, de manière nette mu mu bàyyi ko foofu voilà donc c'est-à-dire comme li nekk ci aiguille montre mu nga comme li nekk si aiguille montre mu ngay tourner si lunettes yi donc verre yi di déplacé wu ba trouver degré bi tax nga nga mën a gis bu baax weer yi am na fi waaw ñu ngi koy jaay si 45 pays Donc, euh, le Sénégal euh, J'ai pas vérifié les 45 pays. Il y en avait trop pour euh, xool ndax Sénégal bokk na ci. Mhm. mais en tout cas mën na ci bokk parce que euh, dëkku Afrique yi wala dëkk yi xam ne population yi seen koom-koom demeewul noonu moom lañ ko gën a jagleel ndaxte lunette yi boo seetloo euh, ñu ngi koy jaayee entre 1300 ba 3500 francs CFA donc cher. 300 ba 3500. exactement sama lunette yi. te tey ñu ngi jar ay 200 et quelques. sama lunette yi non non rek lu ma wax la cadre bi rek 150 000 lañ ma ko jaayee. cadre bi. Ah. cent cinquante mille lañ ko jaayee. voilà donc bokkul ak ñaar ñeenti junni yi nga fay pour pour pour consultation bokkul ak weer bi nga xam ne mooy médicam. dum yem ndànk mën a yow yem <laughs> dëggantaan njaay bi ma demee di ut permis laa si rendu compte ñu ne ma yow mii duñ la jox permis parce que yow dañ lay woon a nga naan ay x <laughs> xam nga loolu quoi loolu moo yàqu nga <laughs> mais c'est très intéressant exactement et puis euh, c'est à la portée de tout le monde je pense oui et puis, 1300 ba 3500 l'idée derrière est noble quand même exactement et puis c'est beaucoup plus solide aussi parce que c'est fait en plastique pratiquement c'est incassable donc et puis ça peut durer toute la vie bu fekkee ne bien sûr euh, gumbuloo waaw et puis lu sa di gën a yokk ngay gën a ajusté yow yaay ajusté sa bopp ba fu mu la neex nga sol dem sa mu ngi noonu quand tu vois clairement tu dis j'ai exactement nga bàyyi ko foofu et puis nga ko abalante aussi boo amee euh, par exemple euh, mbokk boo xam ne moom tamit daf ko soxla pour li égaré na bosam nga abal ko ko mu def réglage ba gis de manière nette moom tam utiliser après delloo la ko xëy na mais je ne pense pas que mu war a ñëw Sénégal parce que l'industrie Euh, ñi nga xam ne ñoom yor euh, affaire ophtalmologie c'est pas c'est pas bon pour leur business mm-hmm. <laughs> en quelque sorte ils vont <laughs> ils nous l'accepter pour que ñëpp gis ko mais en tout cas bu ma ko xamee dinaa xam dinaa xam fan lay am ma wax nit ñi dem leen 3500 gën a yomb 300000 te tout le monde ne peut pas se payer des lunettes à 300000. c'est sûr c'est pas facile. exactement ñu dem ci beneen euh, innovation en tout cas bii c'est super méga intelligent et puis l'idée pour laquelle on l'a créé c'est vraiment noble. nga ni moto bi. voilà donc léegi ñu dem si euh, lii di niroog euh, scooter la gën a nirool dinañ ko gis si image yi mais moom particularité mooy que ne du du basculer du këppu euh, jamais si li ñu wax. testé nañ ko donc en fait technologie bi nekk si biir euh, moom la ñu duppee ay balancier gyro gyroscopique donc euh, genre moteur la boo xam ne dafay tourner ñaar la dafay tourner sur lui-même mais en même temps dafay déplacer wu de gauche euh, gauche wala à droite donc ce qui fait que appareil bi bu déséquilibré wu de sur la gauche moom dafay dem droite pour contrebalancer maanaam dafay contre euh, def contrepoids. donc hmm. machine bi bu waree dem bu waree daanu côté gauche moom mu dem côté droit pour indiwaat ko mu jóg et cetera donc c' est très complexe comme technologie. parce que hmm. affaire boobu si benn ordinateur moo koy moo koy contrôler ak euh, loo xam ne dafay permettre aussi muy déterminer ndax euh, machine baa ngi penché wala penché wul donc di nga gis ne à un moment sax dinañ ko kàjj mais ba tey du du du daanu. donc voilà donc euh, machine la boo xam ne de façon. les images sont là. oui mais ça ressemblerait plus à c' une moto. ah mais xool boo xoolee design bi ni comment les les les gens ils nous ont donné ça. exactement on dirait que c' une moto mais avec euh, un pare-brise des voitures waa gis nga waa ñi li muy ni oto ay waa ji la da ngay xool lii mbëkk na ko mais daanu wut fii de bu la gars yi mbëkkee booru pont EMG bi fële ngay feneen fu ñuy defee visite technique foofu ngay foofu lañ lay foree bi <laughs> dem leen jaay garaaw fii rek. c'est joli hein. oui boobu amee da doo sama oto embouteillage da lay sonal. exactement damay def loolu la gën a moo tax ñu gën ko euh, créer moo tax ñu gën indi innovation bi parce que seetlu nañu ne euh, boo xoolee matin bi par exemple dëkk bu mel ni Sénégal di nga gis oto yu bëri yuñ la buñ la rombee y a un seul passager à l'intérieur voilà donc ñu gis ne ñooñu peut-être ragal nañ deux donc bu ñu leen créer euh, benn deux boo xam ne c'est à cheval entre scooter ak automobile mm. xëy na ko ñeme mais par contre xaw na cher parce que pour nga am ko ça va coûter na na jar ak jàmm. <laughs> Sénégal booy jaay benn affaire ba mu daanu dañ naan la jar na. <laughs> mais bii jaragul. <laughs> parce que du daanu. en tout cas euh, c'est super c'est électrique et puis autonomie bi euh, ça c'est. ça prend pas de euh, courant batterie chargée autonomie bi 320 voilà donc euh, je pense 320 kilomètres euh, mën na dem Dakar Saint-Louis je pense bien ah. waaw soo xoolee. mën ngaa dem Tamba taxaw Goudiri euh, chargement bi du jël temps euh, si quand même temps pour mu fees 8 heures de temps. 8 heures de temps puis vitesse bi mën na daw ba 160 kilomètres heure. waaye li jar na treize millions ah. <laughs> li jar na treize ans. dama koy teg ci yoonu Kaolack yi rek daal di koy tàllal. boo yegsee ba door daan da ngay jaar wàcc tuuti rek yéegaat <laughs> comme do daanu. mën nga supporter aussi benn passager à l'arrière c'est vrai que xaw na exigu mais mën nga supporter euh, adulte. Le seul problème c'est que quand tu as des bagages des tapis des matelas à remporter ah, tu es de prendre une autre <laughs> mais en tout cas c'est bon et ça c'est idéal pour les avancements de la technologie ça. Euh, fii la àdduna bi jëma ah, parce qu'on a des grosses voitures avec une personne 4 x benn nit rek nekk ci nga occupé espace bu rëy. gis benn bus Dakar dem dëkk buy ñëw. benn nit boo demee centre ville doo am foo garé. Ah, surtout surtout les places de parking. donc bari na avantage xëy na prix bi moo xaw a cher rek pour le moment. mais bari na avantage moom. Mhm. léegi beneen moto bi nga doon gis euh, loolu c' est sorti en fait ñu ngi ko wane ñu ngi ko dévoilé la semaine passée le 13 septembre bi passé. moto bi oui donc euh, marque bi mën naa ko cité. BMW moo ko créé. BM BMW ah. voilà donc ñoom ñoo créé moto boo xam ne c' est une moto autonome moto bi soxlawul passager euh, taal dang mooy taal boppam di dawal boppam di circuler si dëkk bi sans sans am ku ko piloté. voilà comme waaw léegi loolu moom lan mooy njëriñ li. waaw pour le moment la. donc euh, xam nga de plus en plus on parle de hmm. yooyu moom fekk 2025 je pense dina commencé daw si àdduna bi hmm. mais moto yi aussi en fait ñoom ils expliquent ne du pour jaay ko euh, en tant tel comme nii nii bi prototype la boo xam ne ça permet ñu jàng euh, nan la pilote bi maanaam ki dawal moto nan yan erreur lay faral di def ak nan la ñuy anticiper erreur yooyu pour justement équiper moto future moto bi ñu koy jox bi ñu koy jagleel pour que mu koy jàppale buy dawal comme oto yi léegi am na oto yoo xam ne sax boo gaare moo lay defal créneau mhm. dafa am bouton booy lii rek mu defal la créneau bi ben même chose donc am na situation yoo xam ne euh, motard bi ni mu koy jéemee esquiver xëy na day def erreur ba tax mu mu def accident alors que moto bi bu amee ay capteurs yoo xam ne na détecté peut-être ay obstacle wala euh, yenn oto yi dina xam nan lay freiner ba tax euh, mu sauver nit ki wala peut-être buy am choc mu amoindrir choc bi ba euh, passager boo amoon am bu waroon am yenn gaañu gaañu yi ben mu atténuer ko ba de sorte que day yéegaat ci moto bi. à la différence de la voiture c'est que quand tu arrives dans les embouteillages quand tu as une moto tu peux te faufiler entre les voitures. mais est-ce que cette moto la ouais. est capable de faire ça parce qu'on est en train de le voir sur un terrain euh, mun naa wax piste d'essayage la parce que je vois pas d'obstacle mis à part la moto qui roule et qui se gare automatiquement ouais. est-ce que am na ñoom possibilité moto bi ñu def ko mu nekk test par exemple j'ai vu trois caisses mun nga woote par exemple à la 2S tu appelles a resto tu dis dama bëggoon ngeen livrer moom mu ñëw ba buntu 2S garé c'est programmé technologiquement wan nga ñu nan lañ koy def ak les drones et mais bii est-ce que am na possibilité ñu def ko ak euh, mbedd bi est-ce que bu gisee obstacle dina ko mën dévier wala mu am njañse quoi comme ni nga waxee booy. yegg si rek ñu njañse ko laajal Moussa Sène moo damm loxo ba. gisee obstacle dina dina dina ko esquiver mais dafa am beneen marque boo xam ne euh, euh, Harley Davidson la. Mm-hmm. ñoom y'a quelques mois y'a à peu près deux mois ñoom tamit dañu déposé benn brevet ñoom dañu wane moto boo xam ne mooy freiné boppam boobu dafay am pilote. Mm-hmm. mais même bu freiné wul bu amee obstacle moto bi mooy taxawal boppam. donc yooyu yëpp ay évolution technologique la yoo xam ne justement genre. promoteur yi moom lay di comme ni ma la ko waxee bi prototype la c'est pas destiné à vendu mm-hmm. pour que muy dawal boppam si dëkk bi du am benn sens mais dafay jàppale euh, conducteur bi par exemple bu am ay euh, boo xam ne dafa mm-hmm. na bay dugg dina xam ne kii euh, dafa war a freiner moom mu freiner même bu fekkee ne pilote bi deful woon attention wala li mu doon daw dafa bëri hmm. ci yàlla mm-hmm. fu nit daane dafa def benn affaire foog ne tu es indispensable on est 5 milliards waaye ñu ngi gën a wàññeeku parce que léegi li ñu defar dañ koy programmer bu ca nit naree nekk di indi ay programme naan non man duma ko def parce que naa nangam nangam après benn ñu ñu defar machine boo xam ne da koy defar gratuitement di ko defar moom kese kenn sonal bu kenn sonal kenn s'il <laughs> y a une personne qui commence à nous fatiguer bon l'avancement de la technologie menace ces oui c'est sûr mm. mais comme je la dernière am na métier yu disparaître ak yeneen yoo xam ne technologie mooy tax muy créé wu. ci Ibrahima sant naa la bu baax gërëm la ci li nga nu indil euh, di la yeewi ba àllarba ak altine euh, talaata ak jàmm incha allah. ma bàyyi la nga wax euh, moo de la fin ba di jaajëfal ñi ma bokkal plateau bi yëpp di jaajëfal ñi ñuy seetaan ñëpp et surtout waayof. <laughs> je m'en doutais surtout waayof dañuy waxtaan léegi léegi ci wàllu. économie gros porteurs yi nga xam ne ñooy jël marchandise yi di ko wasaari ci biir réew mi diggante Podor Dagana Matam wala nga jaar Kaolack Fatick Koungheul Kaffrine Koupentoum Koussanar xanaa miin naa yoon yi ma lay wax nii maa ngi mel ne emprunté car kay. <laughs> wallaay man mii yàgg naa oleeru ah. Mm. Pape comme nu ko waxee tey ñu dalal si sunu gan professeur Oumar Ba nekk ko disponible saa su ko woowee rek sànq yaa ngi koy wax. Mm-hmm. day bàyyi mm-hmm. macha allah tey nag mu fas yéene ñu wax réellement. Mm-hmm. yan perte le Sénégal fas yéene am ci ñi nga xamante ne ñoo banque seen loxo. tey jii maanaam Euh, camionneurs yi ñu gën leen a xamee ci les gros porteurs maanaam camions yu nga nday tey jii mhm. bëggoon nañu xam source de grève bi réellement. Mhm. professeur. voilà euh, maa ngi leen di nuyu di nuyu seen euh, téléspectateurs yi ñu retenir rek en fait que euh, les gros porteurs. Mhm. dañuy participer ci affaire économie réew mi. c'est-à-dire ci koom-koomu réew mi. lu ñu ci participer mooy sur le plan intérieur. Mm-hmm. ak sur le plan aussi des relations extérieures mm-hmm. euh, parce que gros porteurs ñoom ñooy transporter en général les marchandises et les produits de consommation mm-hmm. et donc kooku c'est un élément important dans l'économie puisque produits de consommation yooyu ak yenn équipement yu ñuy transporter yooyu ñooy participer à la création de la richesse dans le pays donc suñu taxawee rek dina am donc gàllankoor buy buy ñëw ci activité économie réew mi deuxième point bi aussi dañuy participer ci relation activité économique Sénégal ak bitim réew mooy dëkk yoo xam ne ñoo nekk suñu ñooñu wër. Mm. yu jëm ñu mel ni Mali ñu mel ni Guinée Bissau Guinée Mauritanie donc suñu taxawee ñaari bërëb ñaari activités yooyu. par rapport ak suñu dëkk yoo xam ne ñoo nekk ñoo ñu wër ak par rapport suñu biir réew mi moom mooy ville yu nekk ci biir ak dëkk yu ndaw yu nekk ci biir yoo xam ne ay produits dañu war a egsi foofu loolu aussi dafay am gàllankoor. Mhm. voilà bu njëkk bi moom mooy suñu seetee sur le plan intérieur. Mhm. donc euh, le fait que euh, produits yi war a egsi ci ay euh, grossistes ay magasins walla ay vendeurs. su gros porteurs yi yóbbuwul produit yi rek loolu effectivement produit yooyu ak matériel yooyu dootuñu egg donc dina freiner consommation bi sur place consommation bi mu nekk Saint-Louis mu nekk ay Koumpentoum mu nekk ay Tambacounda et cetera donc dafay freiner consommation bi daf koy wàññi et consommation bi su wàññeekoo dañuy dem ba nekk ci situation pénurie hmm. su nekkee grève bi guddul trop mun na am déjà euh, les grands magasins et grands euh, grossistes mhm. mis des stocks de réserve su nekkee seen stock de réserve yi jeex na te grève baa ngi continuer il est évident que dañuy dem ci situation de pénurie mhm. et donc loolu déjà dafay indi un problème de consommation et même un problème social mhm. donc sur le plan économique di dina wàññi consommation donc ça c'est le que da nga ne si sur le plan de la consommation dina jëm. Ah. démb dama am benn grossiste bu dama ko dafa doom euh, yóbbu bitim réew lu toll ci cinq cent sacs de soble. Hmm. tey jii cinquante yi sax mënu ko yóbbu. tey jii frein loolu muy freiné économie hmm. ay liggéeyam tey jii hmm. ban conséquence la mën a am bu nga ko gis léegi léegi ci com waaw cest à léegi xam nga grossiste boobu dafa doon jaay. mun naa muy jaay bitim réew di jëm ci ay vers euh, Guinée Bissau Mali wala Guinée. kon exportation yooyu déjà dina wàññeeku ci suñu koom-koom. parce que sooy jaay bitim réew richesse ngay indi parce que loo jaay bitim réew yaa ngi dugal richesse donc loolu dina wàññi suñu koom-koom deuxièmement aussi ci grossiste bi activité économique am c'est-à-dire richesse moom boppam bu mu waroon am dafay wàññeeku ça dire que dootul jaay lu bëri bitim réew dootul jaay lu bëri par exemple euh, client am yu nekk à l'extérieur loolu nag su yàggee trop client yooyu nekk à l'extérieur feneen la ñuy seeti ji fournisseur loolu déjà mu ngi wàññi déjà suñu capacité économique donc loolu aussi il faut ñu seet ko ci yëpp yu jëm ci affaire koom bi donc dina wàññi si vous voulez donc richesse u réew mi deuxième euh, troisième point aussi moom mooy euh, grossiste boobu nga wax fi mu nekk activité boo xam ne yu mu doon jaay jëm ci ay pomme de terre wala ay soble euh, lan lay nekk su demee ba ci kanam mu gis ne activités yi dafa bloqué mhm. grève bi dafa gudd mais beneen il faut mu def leneen loo xam ne bokkatul ci activité commerciale am mhm. donc dafay changer pour mun a euh, gérer dundam mhm. vous donc pour dire que grève bi ça peut avoir des conséquences assez importantes ci biir réew mi mais également par rapport ak bitim réew conséquences yooyu man maa ci xam dara <laughs> boo dikkee ba bagu Banjul bi nekk Sooma mhm. euh, jaaree ko Farafeñ am na ay euh, doomi Casamance. Mhm. bokk ci biir Sénégal. jaarale fa seen ay marchandises. Mhm. wala jënd ay simon ngir tabax. Mhm. buñ dikkee ba ci bag bi mën nañ faa def weer. wala lu tolloog fukki fan ak juróom di xaar seen tour jot. jàll ngir ñu mun jàll. pendant ce temps de l'autre côté les gens ils te gros porteur boobu noonu. Mm-hmm. il fait ça indépendamment euh, c'est pas indépendamment c'est pas indépendant de sa volonté mm-hmm, mais si le gros porteur prend conscience de son impact dans la société te gis nga li muy indi frustration lay indi mm-hmm. euh, déstabilisation du climat social booy génn Casamance di ñibbi sax danan la yaa ngi dem Sénégal parce que dafa am dog-dogaale bu daar suñ diggante mën nga yàgg ci bon boo yore oto bu ndaw rek mën nga def ci euh, bagu Banjul bi ñaata heure ñun on est arrivé un on avait un concert à euh, vingt deux heures ici. Mhm. on est arrivé là-bas à six heures du matin xaw ma sept heures. Mhm. vingt trois heures du matin Mbour la ñu fekk. tellement on a duré là-bas. absolument dañ doon ñaan di sarax pour ñu bàyyi ñu génn imaginez le camion gros porteur nan lay daj. donc pour te dire que am na impact bu mu mën a te li muy impacté boo ko xoolee ci Casamance rek. gis ko mhm. léegi la question. oui c'est les camions maliens. Mhm. bon on veut pas le dire parce que dañu raciste wala mhm. dañu am lu ñu xool une dent contre nos amis. dañu leen di parce que ñoom ñooy def axe corridor Dakar Bamako. Mhm. voilà exact camion yooyu li ñuy sëf. waaw. day indi gàllankoor ci tali bi. camion yooyu léeg-léeg jéye wala musiba. wala tooxi doon am ci tali bi. ñoom ñoo koy jur. donc buñ leen woowee ne leen kaay leen di yëpp dafa bari. yéen a ngi yàq yi nga xam ne ay milliards lañ koy defaree. am nañ ci droit kay ñu toog waxtaane ko. waaye bu ñu bëggee indi grève ndax pesage est-ce que loolu du indi. Mhm. Euh, laxisme tuuti suñ ko bàyyee mu jàll. absolument euh, moom la ñu wax souvent d'ailleurs ci économie euh, économie dafay basé wu toujours ci organisation. donc euh, transport euh, moom mooy doon deuxième grand point bu ñu doon développé transport bu jëm bitim réew mooy béy dëkk yoo xam ne ñoom ñoo ñu wër. Mhm. par exemple soo seetee le Mali xam nga seen produit yu ñu indi yëpp. port de Dakar lay aw gros porteurs yi yóbbu ko que ça soit gros porteurs sénégalais ou gros porteurs maliens yi yóbbu ko au Mali. Mm-hmm. Euh, normalement euh, gros porteurs yooyu fu ñuy jaar ci ay tëli yoo xam ne euh, ay investissement yu mm-hmm. rëy la. Mm-hmm. te investissement yooyu il faut que ñu gérer ko ñu surveiller ko ñu organiser ko mooy investissement parce que tëli investissement yu lourd la donc tëli dafa am ay charges yu mu mën a jël. l'axe Baratal il a il a payé cher pour. Euh, absolument pour dorer le blason. gis nañu kii bi déjà axe routier bi mu defaroon bi donc pour dire que normalement au niveau ci biir UEMOA dafa am ay normes yu ñu voté yoo xam ne loi boo xam ne dañu def ay normes pour le poids des véhicules donc gros porteurs donc surcharge warul am. Mhm. surcharge yooyu nag dafa yàq lu bëri ci tëli yi parce que comme produit investissement soo ci defee lu ëpp. Mhm. loo xam ne la waroon jël loolu yàqam dafay gaaw. Mhm. et tëli soo xam ne ay investissement la donc surcharge yooyu normalement gros porteurs yëpp dañu war a yem ci charge normale. Mhm. xam nga nag parce que économiquement mën na indi ay perte bu ñu fekkee tali bi dañ ko defar sur vingt ans. mu tëj au bout de au bout de dix ans peut-être mu yàqu. trente trois milliards camion biy jóge euh, Dakar di dem Mali wala muy jóge Mali di ñëw ah, Dakar. mu yàqal ñu tali boobu te ñuy jox. 10 mhm. milliards pour 10 ans. Ah. Donc on a perdu 23 milliards. À peu près. Euh, c'est une ça, exactement. il faudra reprendre l'investissement. Mhm. C'est-à-dire foog ñu wutaat encore des ressources pour mën investir loolu. alors monsieur Ba euh, grève gros porteurs est-ce que mënul ralentir activité port autonome autonome de Dakar nax gis nañ. Mhm. su grève yi amee. gros porteurs yi ñooy yóbbu marchandises yeeg yooyu. les voitures. voilà nga xamante ne ñooy yooyu yëpp su grève yi amee. da lay leer ni dana am conséquence. ci port autonome de Dakar. Dakar loolu lan la mën a jur. waaw c'est-à-dire que déchargement yi su ñëwee au niveau du port autonome de Dakar euh, donc ay surestaries yi lay nekk cest a dire ay chargement yoo xam ne daf fiy des mais euh, camion yi jëluñu ko. donc ñi jël ñi importer marchandises yi ñoom ñooy fay les frais là au niveau du port maintenant por dafay am ce qu'on appelle les aires de stockage mm-hmm. yoo xam ne les marchandises les produits les matériels le matériel peut rester là-bas kooku effectivement mu muy gën a gàllankoor moom mooy borom produit yi parce que dafay fay ay frais on appelle voilà des frais supplémentaires bon por peut-être euh, dina ci am euh, ay gain mais aussi dina dem ba surcharger <laughs> si vous voulez aire de stockage port bi. Hmm. ba yeneen produit suñ ñëwee duñu mën a dugg. donc bato yi dañuy nekk un peu. Hmm. aux alentours donc en attente de pouvoir décharger. et ça impacte sur le temps. Ça la livraison l'économie aussi parce que mën nañu am un importateur sénégalais boo xam ne produit am mi ngi doon xaar mu wàcc. Hmm. mais comme euh, au niveau des aires de stockage dafa fees bateau bi mi ngi nekk un peu en rade di xaar. donc évidemment produit boobu comme du ñëw léegi donc ça va poser. mayon la ci chaîne bi rek bu ci am problème rek. Mhm. day laal ñëpp de loin ou de près Aïssatou pour mhm. terminer. Euh, pour terminer dama bëggoon juste revenir sur li ñuy woowee pont bascule. oui pont bascule loolu impact la am économie nationale. pont bascule c'est juste pour pouvoir mesurer le niveau donc euh, niveau poids bi bu camion yi di yore c'est pour contrôler normalement poids boo xam ne waruñu ko dépassé donc mooy pesage. à voilà exactement ça permet. donc c'est ce qui a créé le problème. voilà exactement ça <laughs> permet de peser donc euh, le poids du véhicule par rapport à la marchandise mais il est évident que norme bu UEMOA bi wax normalement si les porteurs respectent justement cette loi là. Il doit pas y avoir de problème mais c'est que comme on le, comme on le voit en Afrique les gens ont souvent dañuy am yoo xam ne dañu ne bon nañ ci yokk tuuti wala nañu yokk lii et cetera ça peut passer ce qui fait que su euh, kii bi ëppee donc conséquences yi ñoon wax léegi moom mooy yàq tëli yi et puis euh, surcharge bi même day yàq plus tard auto bi parce que auto bi dafay dépasser poids am poids de transport am donc léegi les ponts bascules c'est pour faire les controle bon maintenant les transporteurs dañuy wax ne il y a trop de contrôle avec des ponts bascules. Mais ça, c'est un problème d'organisation. Ouais. En relation avec la chambre de commerce, avec les transporteurs, nous disposer d'un accord, ce qui fait que le contrôle, quand même, c'est nécessaire, c'est mmh. absolument nécessaire. Nous sommes espace de distance la ñu war def les contrôles parce que ñoom nee nañu à chaque fois su ñëwee di contrôler dañuy fay xaalis et cetera mais le contrôle est nécessaire pour qu'on puisse respecter l'organisation parce mhm. que base économie organisation rek la si tout bien organisé activité économique bi dafay dox normalement. Mhm. loolu moom mooy yokk richesse su réew. wala mhm. richesse su groupement de pays. Mhm. Eh, exactement ñu ngi koy jaajëfal moom professeur Oumar Ba dina la wax ni bëggoon nañu gën a yaatal mais waxtu bee ñu xooj xam nga deux heures de temps lépp mënuñu ko ñu ko cee wax. donc voilà ñu lay jaajëfal di jaajëfal suñu mbokku téléspectateurs yi di leen jox rendez-vous mardi prochain. ak beneen sujet bu nga xamante ne actualité lay doon mais ci wàllu koom voilà ce qui est toujours passionnant c' est waxtaan ak ku xam li muy wax <laughs> léeg-léeg da ngay gis Pape Sidi mu am fit ba dee toog fii di peser le camion yi <laughs> mm. <laughs> danaa leen vous êtes coupable allez partez merci beaucoup quand même euh, professeur Oumar Ba je vous remercie merci de de nous faire euh, plaisir à chaque fois qu'on a besoin de vous merci mm. beaucoup Ibrahima yooyu tamit ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm El Hadj Malick euh, sant naa la gërëm naa la te di la ñaanal nga ñaanal ma amin ah, mais démb émission bi amul de Boldof Boldof bilaay dama nekkoon ci émission ah. maa pare 23 heures te mënu ma woon enchaîner 23 heures ba deux heures du matin yeewaat six heures. Euh, Allez, <laughs> tu voudrais remercier <laughs> Aïcha Guissé la grande sœur de Koumba Guissé moom moo ma jox tenue bu rafet bi maa ngi koy jaajëfal bu baax. waaw Aïcha yéen tenue yi ngay jox pyjama yi ngay jox xale jigéen ñi doo ma ci jox. <laughs> Eh, ah Aïcha. yow suñu liggéey wax pyjama ah, yi ah seen pyjama yi ngeen yow seen liggéey. xaaral ku ma gisee ñëw sax indil ma problème amis téléspectateurs la deuxième partie et dernière ce sera juste après avec Ziggy pour la mode et Kumba Gissé pour beauté ces effets de de qu'on adore chez elle euh, ñu dem xool vidéo du jour te dellu si waat vous êtes toujours en train de regarder ce matin c'est à nous sur la 2 <laughs>